daa leen ko wax di da naa leen ko wax ngeen am da nga am taw taw fexe rek am ñoom ñun nekk de nekk xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo te ngeen dund ci fàggu waaye ngeen am foofu ma taw feex taw am na waaye yéen xaas ngeen am tawajjaxtu lil fattaahi ab xiifu tuuhuhu wa arjo fuyoodan minhu wal faydu yan xami nee na tawajaxtu jëmale naa euh, lil fataaxi ñeel yàlla muy fataax muy hubbikat bi ab xi maa ngi sakk ca moom yàlla nag gannaaw bi ma jëmale ci moom mi tudd al fataaxu muy hubbekat bi xam mboolem caab yi ak la koy tijji nee ab xi maa ngi sàkku ci moom nag futuuxahu ay futuuxaat futuuxaat nag lu mu mën a firi dafa bëri futuuxaat dana ñëw comme buñ ne futuuxaat comme li yonent bi doon def mooy xare yi mu daan def dem di dajj ay tata dañ koy tuddee ay futuuxaat waaye suñu borom jéggal la say bàkkaar yépp comme ni mu def yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggal ko bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi loolu futuuxaat lañ koy tuddee waaye jekko gum jekku noonam yi loolu futuuxaat lañ koy tuddee mooy lu demee ne fatxu Màkka loolu futuuxaat lañ koy tuddee mooy dem gim dem ba jëf ko ay noonam loolu ay futuhaat lay nekk ak mbégte koy suñu borom di jox loolu ay futuhaat lay nekk nga xam ne futuhaat mën naa bi dafa yaatu mën naa fiiru lu bëri bëri moo ma ne taw a jaxtu jëmale naa lil sama lépp lil fataax yàlla muy hub muy ab hubbikat ak te maa ngi sàkku ci bu ma jëmalee sama lépp ci moom nag futuhoo ay futuhaat muy ak hubbi ak hubbee wa arjoo tamay yaakaar fu yoo dan ay xéewal yuy bëpp min hu bàyyi ci moom yàlla wal faydu te bëgguk saawam nga nee na yan xam yi dana dotteeku maanaam day dotteeku rek di baawaan waaw yan xamu maanaam day walangaan rek du dotteeku rek di baawaan nee na maa ngi yaakaar ci yàlla nag ay xéewal yoo xam ne day bëbb boo déggee faydu mooy loo xam ne xéewal goo xam ne fu muy beekoo di jeex fu muy sotti di fees moo tax mu ne nay dotteeku rek fu muy beekoo nay dotteeku di ñëw waaye nag fu muy sotti itam di fees ndax ne day dotteeku rek du tuur xéewal yi yu muy sàkku ci yàlla di ko yaakaar ci yàlla nee na noonu la mel nag wa arjo maa ngi yaakaar moom yàlla fu yoo dan ay xéewal yuy bëbb minhu bàyyi ko ci moom yàlla wal faydu te bëbbuk saawaan ga euh, xéewal yi nañuy bëbboo di tuuroo nee na yan xam ne day dotteeku rek day dotteeku raditu an alqahaari israada lil heda qariban faridan xendahum aye mubhami nee na raditu gërëm naa xanil qahaar yi walis yàlla muy notaakoon bi léegi qahaar turu suñu borom wu ñëw qahaar moo mooy ki ko notal moo tax ma ne qahaar ci boppam moom lay gërëm gërëmuma allahu de déedéet gërëmuma muxni de déedéet gërëmuma xafiisu de déedéet gërëmuma muqaddimi déedéet xam nga ne tur yooyu jëfandikoo na ko ci bis xasit yi waaye mu ne xaxaaru mi ma notal sama noonu moom laay gërëm lu ko waral mooy is ngir moom xaxaaru lu tax ma gërëm ko mooy raada tàggat na lii ñeel ma alxadaa samay noonu te ba mu koy tàggat na xariban ma doon ko tumurante faridan doon ko wéet tullum ay yu mub xami bu mu ci bu ci nëbbatu ci seen biir bu mu ci wéet maanaam bu mu ci nëbbatu maanaam nam nëbbutoon seen biir wéet seen biir doon fa moom kenn képp tumuranke fa yàlla tàggatal ko fa yàlla mi tudd xaxaaru ci turam bu ñëwee wax xaxaaru ci la jégg ci coobaram yi tàggatal ko noonu ba mënuñ ko lor te moom kenn rek mu nekk seen biir nga xam ne boo séenee sax mbooloo ma ña ko ndar moom jëmi sëñ bi sëñ bi sax doo ko xàmme mi ngi nëbbatu seen biir moo tax mu ne raddiitu gërëm naa xañil xaxaar wali si yàlla muy bi lu waral ma di ko gërëm mooy israada ba mu tàggatalee moom yàlla lii ñeen ma alxedaan wani te booba kat xariban maa ngi doon ko tumaraante wéet man kenn képp ma fa nekk waxaw li nasaara wal buhóoru tamóori géej gi géej yu duus rek ak tubaab yi ma wër nasaraani loolu rek moom man ak loolu rek ñoo fa nekkoon faridan ma doon ku wéet tundum foofee eh, xenduhum fa ñoom ma doon ku wéet faridan ma doon kenn ku wéet képp xenduhum fa ay yu mu xam bu mu ci nëbbu nga xam ne léegi nag maa ngi seen biir boo tollee fii boo sintoo sax maanaam doo ma xam ngir mbooloo mu bëri ma yàlla tàggatal ma euh, nooy ba mënuñ màlloo mu ne su urdihi moom yàlla moo xawees naa ko gërëm loo bil qur'aani ci alquran sukkuran mbir moom may aji cant loxo ñeel ko bii ci alquran ala an umi ci xéewal bi nga xam ne moom la ma xéewalee waaye nag ma di ko cant bil xal bi ci sama xol wal gis mi ak ci sama yàpp yaram sama jëmm wal fam ak sama gémmiñ nee na yàlla de gërëmloo naa ko ci alxuraan li mu ma defal ci alxuraan xéewal gi waaye nag ma boole nag di ko cant waaye nag cant gi ma di ko jaaree di ko cant nag di ko jaaree ci al alxuraan ngir lan xéewal gi ma defalee ma di ko cant ci sama xol di ko cant sama jëmm di ko cant sama gémmiñ maanaam daal danaa ko cant sama xol cantu xol ak cantu cër yépp ak cantu gémmiñ nga xam ne lépp daal yàlla ngir lan xéewal gi ma defee rek moo tax ma ne xéewal gi mu ma defal rek ci laa koy cante loolu bil xal bi ci sama xool war gis mi ak sama jëmm war fa mi ak sama gémmiñ mu ne àll yàllahu idmaanu maxtaarali hudan wa urdihi bil ayaati isir na max na mi nga xam ne sëñ Tuubaa mooy koo xam ne kenn xamul ko mu ne àllee war na ma loxoo ñeel yàlla boo déggee war na ma rek mooy warlu naa idmaana ma iddmaamu ma mooy saxal la nga xam ne ixtaara tànnal na ma ko moom yàlla lii ñeel ma xuddan te mbir moom muy njub boo urdihi te danaa ko gërëmloo bil ayaati ci alxuraan istir na ba nga xam ne mu jël moom alquran max na mi di sama koom di sama màng maanaam di sama muumeel daal ci gàttal nee na warlu naa maanaam li nga xam ne yàlla daf ma ko tànnal ma sax ci dàkk te loolu di ak njub la ak njub képp la li ma war loolu daal warlu naa ko mooy li ma yàlla tànnal ma di ko jaamoo mooy ma sax ci dàkk nga xam ne du ma wàcc yoonu njub yoonu siraatul mustaqim ci lay ci yoon woowu rek ci lay yéeg yoon wi ma yàlla tànnal te moom yàlla de gërëm naa ko ci alquran ndax alquran de sama muumin la yàlla moo ma ko jox muy doon sama màng bépp koom lu ma mën a bëgg rek bu ma luññatee alquran rek bu ma jàngee rek xéewal yi ñëw fekk ci ma ma tax bu urdi danaa ko gërëm loo bil ayaati ci alquran istir na ba nga xamee ne mujj na max na mii di sama màng moom alquran yi ataani bi quraanin asiisin muhassimi léegi alquran mi mu junj léegi nag moo tax mu commencé gannaaw bi mu euh, wéyalee sant yi mu commencé nag di tagg alquran di ko ci boole waale moo tax mu ne su yi sama cantu cër wa ridwaan yi ak sama ngërëm wa am di ak sama cantu làmmañ yépp li naafiheen ñeen la yàlla muy aji jëriñu ji gis nga nu mu yéemee maanaam cantam yépp naafiheen la koy jox joxut ko allahu joxut ko xafiisu joxut ko muqaddim joxut ko keneen joxut ko xaxaaru mii ñu romboon mi ko nootoon noonu waaye ne ne naafiya koy jëriñ moom lay cant moo tax mu ne sama cantu cër ak sama ngërëm ak sama cantuk làmb yàlla yàlla miy aji jëriñ ji tudd nga xam ne turu naafiya yàlla ku muy jëriñ ci turu ci la lay jëriñe moo tax man li naafiya ñeel na yàlla miy aji jëriñe ji ñeel na ko sama cant ak sama ngërëm ak sama cantuk làmmiñ moom yàlla mi nga xam ne mooy aji jëriñe ji attaani ko dikkal na moom yàlla bi quraanin ci alquran xasiisin alquran mi nga xam ne mooy aji tedd ji waaye nag moo assimi doon lu ñu màggal moom alxuraan nga xam ne suñu borom mooy ki ko màggal nee na yàlla mi nga xam ne moo ko dikkee alxuraan jox ko ko mi nga xam ne mooy bu màgg téere boo xam ne suñu borom moo ko màggal nga xam ne loolu bu ko waxee day jubloo tagg alxuraan tagg alxuraan tagg woo xam ne tagg féetul ko kaw mu ne attaane dikkee na ma bi quraanin ci alxuraan joo xam ne ak yi suñ bu màgg màgg la waaye nag moo assimi doon lu ñu màggal mu ngi tagg alxuraan mu ne huwa moom alkaan su mooy sama trésor su mooy sama ndam alkansu mooy sama yiw yëpp ci biir lañ nekk alkansu yi li ma gën a bëgg yëpp mi ngi ci biir alquran alkansu mooy sama koom boo nooru mooy leer mooy buum ga boo déggee leer mooy buum goo xam ne ku ci tikk rek doo réer ndax fa innahu bil urwatil wusqa lanti saama la mooy buum goo xam ne doo mukk kon nag wa nooru mooy leer al mubiinu bay aji biir àlla ci leer ga nga xam ne bii ci moom alxuraan nëx tamit ci ci lañuy aaroo xani naari wala axdaa yi ak noon yi wal xaari ak gàcc neen alxuraan mooy sama ndàmb mooy leer gu bég gi mooy buum gu dëgër gi rek ci gàttal alxuraan moomee ci la ñuy aaroo wëlis safara ba nga xam ne duñu lakk ci safara ci la aaro aaroo wëlis noon yi ba nga xam ne su suñuy noon duñu mënal dara waaye nag wëlis gàcc itam nga xam ne gàcc duñu dal alxuraan loolu yëpp alxuraan moo ñu ko may mbokk tay mu ngi tagg alxuraan nee na kitaabun téere la ismu la ci turu alxuraan yi fii kitaabun maanaam dafa bokk ci turu ci turu téere bi moo tax mu ne kitaabun téere la moom alxuraan akiisun bu tedd waaye nag min asiisin bàyyi ko ci ku tedd te mooy yàlla asiisin bu njëkk bi mi ngi ci jublu alxuraan mooy téere bu tedd waaye nag min asiisin bàyyi ko ci ku tedd te mooy yàlla attaa koo dikkee ne bii ci moom alxuraan asiisun ku tedd aminun koo xam ne ku ñu wóolu la nga xam ne mu jublu ci jibril nga xam ne asiisun bu njëkk gi alxuraan la ci jublu min asiisin yàlla la ci jublu xaaji yi suñ gu ci topp di mooy jibril la ci jublu aminun gi jibril la ci jublu moom mi indi jublu moom mi indi alxuraan xam nga alxuraan bi mu nekk alxuraan nekk téere bu màgg yàlla def ko mu màgg dafa bay koo ci yàlla léegi nag dikk ko dikk ci ku màgg waaye nag ki ko indi mooy ku màgg moom it mooy jibril nga xam ne booy xool mboolem ñi ko laal moom alxuraan ñooñu ñoo gën mboolem guddi yu mu guddi yooyu ñoo gën weeru mu wàcc moo gën ci mboolem weer yi moo tax mu ne Euh, kitaabun téere la asisun bu tedd min asisin bàyyi ko ci ku tedd atta koo xam ne dikkee na bi ci moom téere boobu asisun ku tedd ak minun koo xam ne ku ñu wóolu la mu indil ko li la asisi ñeel ki nga xam ne mooy aji kedd ji mu jublu ci yonent bi al mu tànni ni kay aji matale nga xam ne moom lépp a daje ci moom moom yonent bi alayhi salaatu salaam ba tey mi ngi tëgg alquran mu ne kitaabun téere la ba tey karimun bu tedd min karimin bàyyi ko ci tedd mukarramin kuy aji terale waaye mu wàcce ko ci li ab di ñeel ab jaam kërimun bi aji tedd mun xisin waaye nag mbir moom muy aji xettalee si taraxuma képp kuy borom ak yërëmtulu yonent bi la ci jublu waaye ci kàttu suñu borom nee na téere la bu tedd tedd bàyyi ko ci ku kuy teralal tama taman a teralale waaye wàcc ko ci jaam tedd jaam boo xam ne day xettali képp ku yërëmtulu ba mel ni moom jëmi sëñ bi wala mu mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam ku yërëmtulu rek di jaar ci yoonu njub nee na moom mooy ci lay xettali mu ne xalehi yàlla na dolli nekk ci yonente bi minal mawla mu bàyyi ko ci sama borom salaatun dolli teral goo xam ne bilantiha du am yemukaay waaye nag bi alin ànd koog ñoñom wa asaabin ànd koog sahabaam yi loxoo ñeel ko xay su yantami fuñ fi man fuñ fuñ fi mantu askanee rek fuñ fi mën a nekk rek ci gàttal mu ne yàlla doole nekk ci yonent bi salaatu goo xam ne dafay bàyyeekoo ci yàlla goo xam ne du am yemukaay nga xam ne yàlla da koy dott rek waaye nag moo ki waa këram ak ay saabaam yëpp fuñ sahaaba yi fuñ mën a nekk rek maanaam salaatu salaam dina leen fekk ba tey mu ne alayhi yàlla doole nekk ci yonente bi salaatun dolli teral min hu ba min hu gu bàyyi ko ci yàlla maa xaala feeg wax na saakirun aji sant ne alaa yégal na indi nii man Serigne Touba de us nii danaa sax tàkk di tàgg xalaa xayri mun xamit ci kii nga xam ne mooy ki ngën ci aji ci ji nee na yàlla doole nekk ci yonente bi dolli teral gu bàyyi ko ci yàlla muy salaatu wasalaam feeg ki nga xam ne mu ngi mu ngi sant rek di jël léppam jëmale ko ci suñu borom tabaaraka wa taala di sant yàlla di ko tag guddi ak bëccëg yi nee na feeg loolu mi ngi am rek salaatu salaam moom bu mu dañ di jëm ci yonente bi alayhi salaatu moo tax ma ne alayhi yàlla doole nekk ci yonente bi ci yonente bi salaatun dolli teral min gu bàyyi koo ci yàlla min hu gu bàyyi koo ci yàlla maa xaala filéeg wax na saakirun aji cant ala ala yëgal na indi nii man us nii danaa sax dàkk di tagg ala xayri mun xamit ci kii nga xam ne mooy ngën ci aji xewale ji mu ne xëlli yàlla dolli nekk ci yonente bi salaamun dolli gu wóolu min karimin gu bàyyi ko ci yàlla muy aji tedd yëkkoonu goog dana nekkal lii ñeel ma wala astaki te duma jàmban mukk lil xalqi ñeel benn mbindeef min faqadi am ami ngir ñàkk ay xiwal nee na yàlla nekk ci yonente bi dolli gu wóolu ci yàlla muy aji tedd goo xam ne daf may nekkal daf may nekkal ba faw waaye nag man Serigne Touba de du ma jàmban mukk du ma jël sama loxo mukk di ko tàllal mbindeef ngir lan ñàkk ay xéewal képp déedéet du ma ko def mbindeef mu ne xolli yàlla dolli nekk ci yonent yi ba tey salaatu dolli teral min gu bàyyi ko ci yàlla goo xam ne tak fii nii dana ma fegal laale dana ma fegalaale al asa lor ja waaye nag wa tax mi dana xaar moom salaatu goog janaa bi sama wàll xan la xëy nin képp ku ñu rëbb waman ak koo xam ne xam ma dafa gumba dafa sol ma xam mu ne yàlla dolli nekk ci yonent bi dolli teral gu bàyyi ko ci yàlla muy salaatu goo xam ne day bàyyi ko ci yàlla goo xam ne man Serigne Touba daf may segalaale mboolem xeeti lor yi waaye daf may aaraale sama wàll ba nga xam ne képp ku yàlla rëbb rek kooku duma ma jege waaye képp koo xam ne dafa amee euh, dafa gumb rek dafa solmax rek solmaxa goo xam ne ci xol la nekk nga xam ne amul gëm yàlla amul leeru gëm yàlla rek ak képp koo dañ ko rëbb rek kooku nga xam ne salaatu wasalaam googu salaatu xam ne daf may aaraale ba nga xam ne ñii ñëpp dañ may sëriwaale mu ne xëlli yàlla doole nekk ci yonent bi ba tey salaamun dolli teral min hu min gu bàyyi ko ci yàlla maa faata fekk am na li mu bëgg mustakin aji aji jàmbat ji ilahi jëm ci yàlla mu ne salaatu go salaam goo xam ne mu ne salaam goo xam ne day bàyyi ko ci yàlla mu ne yàlla na ko sotti ci bi fekk rek nit ki mu ngi am ay yitte jàmbat soxla bu mu am rek mu faju fekk mu ngi am rek nee na salaam gi moom bu mu dañ mukk di bàyyi ko ci yàlla di jëm ci yonent bi léegi yàlla dolli nekk ci yonent bi salaamu dolli wóolu min gu bàyyi ko ci yàlla maa faata fekk am na maa faata feeg làq na mustakin aji jàmbat ji euh, muy am la mu jàmbat mustakin aji jàmbat ji ilahi jëm ci yàlla feeg mi ngi am li mu bëgg rek ne ne salaam gi moom bu mu dañ mukk di beekoo ci yàlla di ñëw ci yonent bi moo mu ne maa faata am na mustakin aji jàmbat ji ilahi jëm ci yàlla bi maa loo xam ne yuuf saa des na ci cëroo des na ci xejjoo bii ca loolee xayra mun xam mbir mook muy mbir mu muy ku ñu xëywalee mbir mook muy ngënt ku ñu xëywalee moom mu ne féeg ki nga xam ne daal mu ngi jàmbat mu ngi am la mu bëgg daal ci gàttal maanaam daal féeg mu ngi am la mu bëgg rek ay xéewal yu mu bëgg ci mboolem xéewal yu mën a doon féeg mu ngi koy am rek mu ne salaatu salaam gi daal salaam googu moom bu mu dañ mukk di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag di aali ànd ko waa këram wa ashaabin ak ay saabaam yépp waaye rajawtu yaakaar naa minal ali ci yàlla muy aji kawe du xooli sama tab bi xaddan ëllëg fii silkiin ca seenug fiil ga saa tànnaaw ma mbir moo may borom a xéew may borom xiiw nag nga xam ne léegi damay bokk ci seen biir bokk ci seen biir jax santu seen biir mel ni dama bokk ci biir sahaaba ya nga xam ne loolu yàgg na ko bi bét dem na ci bokk boppam sax ba ne dammat ñee la aqlaama li sahaaba sama xarima yi ak sahaaba yi ñoo tolloo kon nag mu ne maa ngi yaakaar ci yàlla nag ma bokk ci biir saxaaba yi bokk ci maanaam bu fekkoon ne dañ naan ab fiil la ak kurus la maanaam buñ ko nasee man dañ may nasaale ci biir fiil ga nga xam ne damay ànd ak ñoom mboolem fu ñu mën a dugg ci aljana yu gën a kawe rek nga xam ne ñoom ci aljanay firdaws yi fa gën a kawe fa yonent ba nekk foofu la ñuy dem ñoom saaba yi ndax ñoom ñooy ñi gën a jege yonent bi nee na nag damay bokk ak ñoom di xéewu foofu ci aljana yi moo tax mu ne rajawtu yaakaar naa mi ne ma àlli ci yàlla mi aji kawe du xool yi sama tab bi xaddan ëllëg fii xiil gëm ci seenu xiil waaye nag saatanaxaw mbir moom mooy borom a xéew mbokk yi di ñaan suñu borom defal nu dégg ak foofu la yem yàlla defal nu dégg ak topp subhanaka la xilma lana ila ma alamtana innaka anta al